yéen a ngi seen biir émission Jóg Job euh, ci biir euh, dakarnet.com tey nag ñu indil leen émission boo xamante ni euh, dafay wax ci wàllum liggéey dóor waar quoi ñàkk jariñu comme on le dit soo a aussi tey ñu ñëwoon Liberté si seet si benn gaayen boo xamante ni mi ngi yëngu ci wàllum parterre te ku ne parterre rek ne ay risques léegi on va essayer d'en savoir plus avec moom laaj ak tontu lay doon ci seen biir émission Jóg Job alors sëñ bi dañu bëggoon a xam euh, yow nan nga tudd avant tout. waaw maa ngi tudd Makhtar Makhtar Diouf. Makhtar Diouf Makhtar Diouf dëkk fan. bon man maa ngi dëkk Thiès laa ah, dëkk na quoi mais bon fii laa nekk quoi fii laa basé wu quoi tawoon fii nii quoi. ok ñu bëggoon a xam yow liggéey bi ngay liggéey nii hmm, lan moo la motiver parce que am na ay jeunes yoo xamante ni ah, il préfère toog seen kër bañ a def dara mais yow tu n'as pas choisi ça da nga ñëw def euh, parterre di jaay say daal di ci di ci jéem a génn loolu lañ bëggoon a xam lan moo la ci motiver wala lan moo la ci dugal. waaw waaw bon maa ngi char gars yi nag quoi sama gars yi nii maa maa ngi leen di char quoi xam nga bon motivation bi nag du lenn lu dul xam nga nekk benn jeune boo xamante ni da nga bëgg dara quoi bëgg dara bi mooy maanaam xam nga bëgg. réussir quoi parce que tamit xam nga quoi qu'on puisse tamit xam nga jeune da war a job quoi bon Thiès laa jóge ñëw town di di ko lijjanti mais bon li laa am comme job koi damay xëy dem wuti daal ñëw xam nga lal samay daal dóor quoi loolu rek moom mooy motivation bi bëgg réussir quoi loolu la ah, ok kon su ma la déggee yow Thiès nga jóge ñëw Dakar pour euh, pour pour daan sa doole léegi dama bëggoon a xam yow daal yi nan ngay def ba génne ko da ngay da ngay dem jënd jaayaat wala nan lay demee wala dafa am ku lay jox ay daal nga koy liggéeyal wala nan la demee loolu. waaw mais bon daal yi nag man damay jël sama xaalis dem ci gaay am am naa ay gaay yoo xamante ni ñoom dañ may jaay nu mu tëdd prix en gros quoi léegi su ma demee si ñoom su ma wàccee nii damay jaar si ñoom dem si ñoom ñu jaay ma ay daal prix en gros après suñu ma jaayee léegi. ma ñëw su ma xëyee ñëw lal samay daal jaay quoi donc je diir dire que damay dem jënd quoi damay dem jënd si ñoom xam nga ñëw jaayaat quoi. mais jënd bi ngay def mbaa nekkul ay prix yoo xamante ni après boo ko jaayatee du la doo ci génn du la arrangé. non xam nga fii moom bon bénéfice moom doo ko xeeb quoi bon man man moom man Matar moom bénéfice du ma ko xeeb quoi parfois xam nga ma xalangu ci benn daal après récupérer ko ci beneen daal quoi. noonu laa joobee quoi parce que tamit dëkk bi dafa xaw a taru quoi parfois client dina ñëw bëgg mais lim lay fay day nekk prix boo xamante ne yow di di nga xam ni benn côté nii sax du la xaw a arrangé mais xam nga dangay ngay rek nga jaay ko parce que loolu noonu après mun nga ko gagné xam nga ci ci beneen dàll quoi benn client mun na ñëw nga waxaale ak moom vite fait xam nga nga jaay ko wax la prix boo xamante ne yow arrangé na la quoi léegi fat nga fële ne fat fatt nga fële ne xam nga waa léegi man foofu laa bëggoon ñëw sax eh, des fois est-ce que doo leen tasanteeg ay clients yoo xamante ne xam nga wàllum jënd moom des fois nga tasanteeg ay clients yoo xamante ne ak seen i jikko ak seen i affaire wala clients xam ah, ba ngeen di espérer après ñu tas seen yaakaar wala affaire yooyu yéen a ngi ci yéen a ngi parce que tamit ci mbedd bi nga ne. Alvin <laughs> xam nga nu mu fa demee wàllum jaay moom ah dama lay wax lu leer loolu gaa yooyu noonu chaque jour da nga koy am fii nii. mais boo jugee yow ba di yëngu ci business bi nii nii client boo mënti gis da nga war a xam nooy noo koy affronter quoi. ah kon marketing dafa am ci biir quoi. non déggoo lu ma la wax client boo mënti gis da nga xam noo koy nu mu ñëwee ci yow da nga xam yow noo koy dalalee noo koy accueillir boo fexe lekk xaalisam yow parce yow loolu moo la tax a jug quoi. noo lekkee xaalisam ak jikko bu mu mënti indi waxal ak moom calmement posément xam nga nga fexe jaay ko mu dem quoi yow fexeel nga lekk xaalisam quoi man moom dama ciy gis bu nekk quoi mais bon yàlla mi ngi may dimbali quoi maa ngi fexe jaayante am nu ma def ak yow rek ba lekk sa xaalis après. waa mais aussi dama bëgg dama bëggoon a xam ndax yenn saa yi dina la dal nga xëy suba ba ngoon doo jaay dara ndax dëkk bi ñëpp xam nañ ñu mu mel dafa metti bu tayee mu neex bu subaa mu naqari yow dina la dal yenn saa yi nga xëy tout la journée doo jaay dara nga ñibbiwaatee noonu comme koy waxee brodo yi. daf may dal parce que jaay tamit wàllum borom bi moom mooy jaay da ngay xëy damay xëy man mataar damay xëy ñëw lal samay bagage suba ba ngoon jot du ma gis client ma laaliwaat samay bagage dem ñibbi gëm ni borom bi dafa nii la waroon demee quoi tey gisoo client quoi da ngay gëm yàlla quoi xam ne ne affaire bi tey doxul quoi borom bi moom mooy jaay quoi. waaw ah, noonu la demee nag yéen a ko déggandoo yéen ñëpp mais Matar est-ce que xam nga ni tamit fi ngay lal di fi jaay tamit c'est pas normal de xam nga loolu. waa mais loolu loolu moom xam naa bu baax ni c'est pas normal quoi loolu moom. parce que fii passage piéton la. fii dañ ko defar pour nit ñi di fi aw du pour teg ay daal di jaay. waaw mais bon xam nañu loolu mais town bi moo amul job xam nañu loolu bu baax a baax town bi moo amul job ñun soo gisee ñuy ñuy def lii nii xam nga lii nii ni ngi koy def mais dañoo ñàkk pexe. amuñu beneen waar gisuñu beneen waar te du ñu nekk fii xam nga nekk ay magum jëm di tàllal suñu loxo di ñaan mais li ngay wax nii moom xam nañ bu baax ne ñun fi ñuy lal nii war war ñu fi laal mais gisoo gisoo nga dem luye ji benn local bu ndaw même bu dee sax 15 000 ngay fay par weer nga dem tijji ko que ngay lal par terre parce que parce que lii ça gêne. waaw mais bon loolu dëgg la quoi mais xam nga affaire yi moom ah nanka nanka la quoi. képp koo gis muy tàllal di laal ci suuf nii ah ñaan na yàlla am ngan di boutique boo xamante ni fa lay teg ay denc ay affaire am di di xëy di ñëw di ubbi boutique am man man man ñaanuma yàlla di di di continuer nii feeg déwén ñaan naa yàlla xam am sama boutique bopp te man. ah mais Matar yéen lool ngeen di wax rek yow ñaata at nga fi def ñaata ñaata at nga fi def avant tout. man fii nii ba ma fi commencé daaj yàggul déglu ma dama lay expliquer man ñaan naa yàlla feeg déwén. ma am sama boutique bopp boo xamante ni dugal samay bagage quoi di xëy di dem di ubbi samay boutique kon yaa ko wax fii ak fii allah dinañ weyten si dinañ ci xam dara mais yéen nan ngeen dundee fan yi ak déplacé yi ñuy déplacé ñi nga xamante ñu ngi ci mbedd mi yéen ak bi yéen waa police et autres loolu sonnu leen ci di déplacé wu di jël seen dàll yi di laal di ñëwaat bu leen dàqee ngeen ñëwaat affaire yooyu loolu sonn loo dañ koy dund comme moodu moodu yi nekk kaaw rek ñu koy dundee ak gars foofu noonu xam nga ñun bu ñu gisee gars yi nii nii dañuy jéem a jaayante laal suñuy daal nii xam nga laal suñuy daal ba gars yi peut-être gars yi bu après ñu jéem a daajaat lalaat affaire yooyu noonu ko mais wax dëgg fa yàlla moom sonn nañ trop temps yi nii xam nga ak gars yi nii nii mooy loolu waaw mais Matar man dafa am lu ma seetlu yow fi ngay jaayee ni ngay jaayee dafa yomb trop ni ngay jaayee dafa relax yaa ngi teg say daal di jaay teg sa caay ah, na toog si kër gi ah est-ce que est-ce que yow yaa ngi yëg métit bi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yow. waaw mais bon gars yi nag buñ la gisee nii ngay ñëw nii xam nga lal teg sa caan xam nga xam nga laaf bi lépp loo gis rek zéro pression rek ngay demee koi xam nga bul bul bul yenn sa bopp lool loo xamante ni xam nga yow yàlla tegu la ko quoi man damay xëy ñëw lal samay daal dem jënd sama wargaa suukar ñëw teg ko xam nga toog xaar ki. nu mu loolu laa lay wax dafa yomb <laughs> dafa yomb. nan la c'est trop facile dafa yomb. xam nga lan moo yomb est xëy tëdd sa gaale teg sa caayin foofu noonu loolu mooy yomb mais xëy jóge sama gaale ñëw lal samay daal teg sama caayin loolu moom wax dëgg fa yàlla yombul ko voilà pour man yombul xëy tëdd sa kër loolu mooy lu yomb. waaw kon mbokk internet bi yéen a ko déggandoo ah. Matar nee na kon moom job bi mi def yombul parce que nee na li yomboon mooy mu tëdd këram ah di tëdd ko jug mais def ko dafa ñëw génn ci mbedd bi di di ko taqale di ko jaayante waaw mais ba tey Matar man li ma li ma li ma lay laajaat mooy que ni. moo tax nga choisir daal mënoo nga choisir yére wala nga choisir leneen di jaay beneen beneen beneen beneen produit bu dul daal la moo tax nga choisir daal. waaw mais bon man nag commencé wu ma ci daal kese quoi man maquette laa doon dugg Colobane laa doon dugg xam nga ko ay yére nii ay chemise ay. t-shirt ak ay body gel affaire yooyu noonu xam nga ci loolu laa nekkoon di dóor affaire yooyu noonu mais bon peut-être que xam nga da ngay jékki-jékki rek am benn jabu jabu ay dàll quoi man dama xëy sama grand bi yooyu yónnee ma ay dàll quoi yónnee ma ay dàll ne ma booy doo xool dàll yi noo ko mën a dóoree affaire yooyu noonu quoi après si laa gis dàll yi ma ñëw lal dàll yi mu commencé dox xam nga. Ah, ok kon yow kon kon yow su ma juumul am na ku nekk si bopp bi. am na ku lay coacher si kaw. kenn ci bopp bi <laughs> kenn nekkul ci boob bi fii moom xam nga rek mooy loolu c'est xam naa grand bi dafa coacher woon ay daal foofu noonu xam nga rek daal yi xaw xaw ko sonal foofu noonu mu ne xaaral ma yónnee ko gaal seen affaire yooyu noonu après mu ko yónnee nag xam nga ci laa ko dóor mais après loolu nag xam nga ci laa ñoom business bi ma xam ne ne business bi mooy loolu sant yàlla après ma commencé nag di dugg ci town bi coacher samay cuus ñëw teg di dóor. ok mais koñ bi nga ñëw nii koñ par exemple koñ bi nga ñëw nii di fi liggéey di fi liggéey di fi job nii ñëw waa koñ bi nan lañ la dalalee ba xam am nga fi jàmm yaa ngi yaa ngi yaa ngi fi sa jàmm nan nga nan ngay dundee ak ñoom quoi sa relation ak waa koñ bi. waaw mais loolu jarul laajte yow boo ñëwee gis gars yi nii gars yi yaatal ko teg caan nii xam nga baa toog nii gars yi nice xam loolu jarul laajte gars yi fii ay ay borom baax a fi nekk ay borom baax a fi nekk te xam nga ay jantal meena fi nekk. gars yi nice dañ ma dalal ak jàmm nekk samay gaan xam nga ñuy kaf di ree parfois ñu soxla ay dàll nii nii dama leen di jaay daal ñoom ñëpp mais fii moom franchement moom ay ay borom baax fi nekk de. looloo nekkoon essentiel cher internaute de Dakarnet point com ah, lii la leen indiloon tey si seen biir émission Jóg Job ah, ñu nekkoon Liberté 6 tey ànd ak euh, benn jeune boo xam ni il est déterminé. ci li muy def ah mi ngi ciy dem avec euh, jom ak fulla hmm? ñu fekk si woon ko tey passé ak moom quelque minutes rek ah jéem a leeral ci li muy yëngu ah, nan la ci génnee ah, ba xam euh, sono luñ ko et aussi fan yi gis nañu maire bi dañ leen déplacé et tout loolu lañ fi amoon tey di ko waxtaanee ak euh, sunu waa ji Matar mu jóge ba Thiès ñëw ba Dakar di fi daan dooleem loolu leen indi loon tey seen biir émission jóg job léegi dañ leen di jox dig dajee semaine prochaine ah, ak beneen jeune buy yëngu ci leneen. Ah, ñu fas yéene dem toog gën a développé loolu gën cee xam plus euh, ma leen di jox rendez-vous ngeen bañ ko raté et aussi n'oubliez pas de vous abonner euh, sur notre page youtube dakarnet.com euh, et merci beaucoup à la semaine prochaine